dem ci sama waa ji man itam comme ni nga ko waxee rek euh, bijou mm-hmm. <laughs> donc je pense que tu fait un bon départ nekk na kenn koo xamante tamit béy na waaram fi nga xamante balaa L'Oréal sax di Sénégal parce que ça woon révolutionné woon bu baax li nga xamante moom moo di euh, wàllu coiffure parce que mm-hmm. dafa dem ba organiser li nga xamante moom moo di ay masterclass pour gën a xamal nit yi lan mooy coiffure ak naka nañu war a toppatee karawu doomu aadama ñu dem xooli ko dikkat Michael Alawo donc bokk na ci ñi nga xamante ne tax nañ ñu gën a respecté métier fii nii ci Sénégal parce que daf koo jëloon yóbbu ko beneen niveau euh, nekkoon nit koo xamante ne il était très respecté dans le domaine de la mode amul un grand défilé qui se passait au Sénégal sans qu'il soit là mm. et qu'il coiffe les mannequins franchement euh, chapeau à lui et puis qu'il repose en qui repose en paix te je pense que Sénégal aussi rendre na ko ko ndax dafa teel a jóge fi nga xamante ne moom moo di dëkkam nekk Sénégal di fi bay waaram euh, li

mooy na nga dem jàngi mhm. boo jàngee ba pare ci ngay gën a mun a pratiquer di joxe ay conseils tout le temps il se plaignait Mado arrête avec tes perruques ah donc ndeysaan il sera plus là pour nous le dire parce que le octobre bi la doon dem fi nga xamante ne moom moo di Johannesburg pour def li nga xamante ne toujours ci wàllu liggéey pour te dire que di nga nekk professionnel mais toujours da ngay gëstu donc il devait aller faire une formation par rapport à la coloration coiffure machallah je pense que bu ñu nee Paris rek wala Amérique léegi aussitôt dañuy lim li nga xamante ne moom moo di Sénégal donc il devait partir le vingt 27 fii nga xamante ne moom moo di euh, Afrique du Sud malheureusement mu def foofu benn malaise à l'aéroport et dommage de suite il a rendu l'âme donc euh, léegi nag li ñuy prévoir rek mooy ki nga xamante ne moom moo di Nadia xam naa dinañ def benn messe normalement qui sera prévue euh, euh, normalement mercredi inchallah donc fële ca hôpital fan dañuy defee li nga xamante ne moom moo di mess bi et il sera enterré ci cimetière au Saint-Lazare bi mercredi donc ñëpp ñi nga xamante ne jotoon nañ ko xam bëggoon ci assister mun nañ ci dem mais je tenais à parce que lu mu bon bon ñun jot nañ ñu nekk ak moom mu jàngal ñu te xam naa ni ñu bare ci àdduna bi jot nañ euh, jàngandoo ak moom jot na leen jàngal du moins bi jour en tout cas dinañ ko regretter bu baax ci mm-hmm. monde coiffure monde mode Sénégal et, et surtout euh, L'Oréal bu àdduna bi L'Oréal aussi euh, dina leen manquer mais mm-hmm. bon ku sa jot rek mooy loolu qui repose en paix et euh, yàlla may ñëpp xolu muñ parce que c'est très très très très dur doo xam sax noo ciy génnee pour jaar ci waañ bi noonu pour su fi toggal ñu parce que après dañuy xaw a triste <laughs> mais bon li ma sow rek naa jàkka wax voilà voilà mais bon euh, man c'est pas une euh, de perte c'était vie oui mais après liggéey na loo xamante ne du mm. je reste toujours moom laay wax toujours nit ko bu demee en fonction li nga fiy bàyyi. Mm-hmm. exactement man loolu laa lay euh, jàppee. et tey gis naa lu mu def ci yéen et tout pour moi il est toujours vivant. il est parmi vous il est à travers vous. ne sont pas mots. <laughs> moo fi bàyyi bon. ah dina a dina bëri. yàlla na yéex yàlla na yéex waaye dina la non li ma benn rek boo fi bàyyi boo demee. Euh, li ma xoolal ma. jàngal mais wàllu kii. bàyyi ma ma non caméra bi na ma ah, wane ma la. koy wax waaw. maa wax ak de. ŋaaña ŋaaña. nga fi lu bare. waaw léegi bàyyi ma wax. c'est Bouba qui te parle ah. waaw man ngeen daal léegi euh, <laughs> mais bu yaa ngi may dugal ci équation yoo xamante ne. mais ah, animateur ñun daal duñ jëw daal. ce bien ce bien ñun ñëpp xam nga. ku la naaf seen saa yi xam ne. léegi dama ne. non dama ne ah, première maquilleuse à devenir animatrice à la télévision Futurs Médias waay waa ngi. Ah, yàlla na yéex mais boo demoon tey jii loo fi bàyyi. dañ fi des mais dadi yow noo fi bàyyi dadi. ay ay waay ay waay eh yéen waxu de du ngeen ko bàyyi. mais mais dama la ci tontu mais mais mais dama dama la ci tontu. dama dama la tontu rek tey <laughs> dama bëgg nga jël caméra. nga dem nga wër rappeurs yëpp rappeurs yi bul bàyyi kenn ah, ku ci nekk mu wax la rek fi jaar ak li